الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم mbokki téléspectateurs yeeg téléspectatrices yu fayda tidianiya point com ñi baaxoo di ñu seetaan di ñu déglu ci waasitatu fayda tidianiya point com yàlla tàggatal leen seen roox ñu bugg yàlla bugg turam yi yu rafet yi bugg ku leen nay waxtaanal ci moom subhaanahu wa taala ñu leen ay gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen ñaanal lii ñuy joxe lu ci waay jëfandikoo rek yennam barke te nag maa ngi commencé ne ñaan dafa am ay sart lu dégg rek waaye ji joxe tourné yàlla tiib lu ci waaye ñaan mu nangu wala joxe dong lu ci waaye ñaan mu nangu nga def ko rek yaakaar da nga koy def am li nga bugg te defuloo condition yi mooy foog nga laab li ngay sol laab li ngay lekk lew te li ngay ñaan nekk lu dagan bu boobaa moom insha allah boo sellalee rek li nga soxla da nga ko am tey nag ñu fas joxe bu gàtt boo xam ne gàtt na waaye xaqiqatan liñ soxla ci turu yàlla wu ne foofu rek la daje te kat latif la latif mooy juróomi latif mu tolloog xudaam xudaam bu fekkoon yow nit ki yow yaa am tur mu tolloog 645 eh, jëmm ji nga xam ne moom moo nekk ci gannaaw jëmm jooju di serviteur bi nga xam ne mooy lëggeel jom ju ngi moo am tur loolu mooy turam mooy xaadim boo yoon boo ne xaadim muy 645 nga ne xuddaam muy 645 645 nag e, mu ngi tolloog ismullahi boo xam ne fukki araf la ak benn muy yaa xaadiyal xaajaat yow mi faj xaajo defe tur yàlla ak boo mën a jël ci kaw suuf bii faj aajo ngay wër mooy xaadi xaaja moo tax boobu de bëgg naa maa ngi ñaan ñëpp nee nañ ko jëfandikoo waaye mosuma joxe tur nag ne bala kenn naa def boobu na ma waaye bii moom condition yi daal bëgg naa ci dimbale jaam yàlla yi moo tax bëgg naa ci dimbale jaam yàlla yi bu baax ndax 645 boo jëlee jalaal muy amun saquna alam yeesu nga yokk ci benn loolu la lay jox nga jël allahu bastu ko ne alifun laamun laamun haahun yokk ci limu ay yuqayom mu jox la ko lim kenn kenn xamut kenn xamut li dajee ci tur moo tax tur woowu ah, daanaka bu fekkoon dañuy joxe lijaasa ci latif boobu nag moo jar laaj lijaasa ak lu ja ak tegu nag ci borom jar na ko kooku loolu lañ ciy mosle tey soo koy liggéey moo xam da ngay jàpp def naafila yaa xam moo xam da ngay jàpp moom set toog jublu penku yaa xam juróom boo paree rek eh, da ngay def gannaaw boo defee fatiha def astaghfirullah eh, def salaatu ala nabi comme niñ ko xamee da ngay def yaa latifu yaa latifu juróomi yoon defaat yaa latifu yaa latifu quarante fois defaat yaa latifu yàlla latifu six cent mooy juróom benn téeméeri yoon muy juróom benn yoon ci course gi ndaam 645 muy xudaam xudaam boobu nag bés bu la nangoolee loo soxlaati ci kaw suuf moo la koy indil waaye waxtaanam dafa gudd dëgg dëgg dëgg kooku xajul sax ci fukki émission ndax mooy xudaam yaa xudaam kada wa kada yaa xudaama ismuka sarif yaa xudaama ismu latif wala tawakkalu wadhabu ila fulani fulan nangam nangam dafa bëri daanaka kooku mooy lu ñuy wax xas kii xasmu boo ci buggee def xasima nga bugg cee def euh, joxe ci ndigal ne defal leen ma nangam ak nangam ndaaga ndaka xajut ci ñu loolu lañ ciy joxe tey euh, bala may jeexal nag tey dinaa joxe benn naafila boo xam ne dëgg-dëgg jamono moo toll foofu maa ngi ci xul walaaw dinaa ci dellusiwaat ci naafila xul walaaw xam na boo xam ne boo ko naafila ba pare rek da nga 82 muy alhamdulilahi rabil alamin waaye kooku euh, li saalum saalum ay wax euh, euh, kii seeranto moom laa koy def xale bu njëkk buñ seen papa génn naa tukki ñëw indi lëmbur te ñeneen ñaamul ñu daggal leen dañu génn di ko woon xale yi wala ñu jënd leen yére bu bees loolu mooy seeranto duñ te duñ leen fi mayal mënuñoo fexe bañ may leen duñ ci may waaye mayit bii moom dama koy seeranto mooy <coughs> naafila kul walaaw gi nga xam ne boo paree rek nga am 582 te ci tur yàlla yi ci biir <coughs> kul walaaw lay den waaye beneen la bu tey bi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog feebar feebar bu gaaw feebar bu gaaw foo ko gisee rek wax auzu billahi min shaytan rajim mu gaaw noonu néew doole lool ci ñaari fan ndeke dañ ko njaba jibril ñëw toog ci bopp bi am beneen malaaka bu toog ci tànk ne kii lu ko dal mu ne ko dañ ko njabar mu ne ko ko njabar mu ne labid ibnu adam al kooku siif la woon yowoon la woon mu ne ko fu mu def liggéey bi mu ne ko mu ko def ci bi teen bu ñëw arwaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoo Aliyu ibn Abi Talib jàmbaari fakkatari fu mbir naan këtt ne jonn rek moom laay wax mu ne ko demal nga jëlali ma fekk ñu ngi jël ci liifu tàndarma yi tàndarma guñ comme bu doon fii nii tey eh, mën nga wax ne mooy fàllay ñu jël ci liifu tàndarma yooyu Euh, dëbb ko ba mu nooy nga xam ne da ko mën a xeew ak takk ka tekki euh, lii fu tàndarma yooyu nag fekk ñu jël photo Muhammad boobu foto amul waaye dañ ko dessiné li gën a yomb fu mu ne moo tax fu ne ni ñiy def lu bon kañ waaru nañ ndax bu njëkk pour nga am photo nit ki def ci moom lu bon dafa jafe waaye fu mu ne foo gestu gis photo ñu dessiné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak taar ba jël euh, kii li fu yooyu te mooy cëgg ba cëgg cëgg lañ ko ci nga ji goj yi buum yi ñu takk ci oto yi yëpp mu ngi bàyyi ko foofu ñu euh, euh, mu takk ko euh, yonent bi sala def ko fukki pas-pas ak benn pas-pas bu ne mu jam ca pusa liggéey yonent mi mu gaaw lool sallallahu alayhi wa léegi nag bañ ko demee ba ca biiru arwaan mooli teen dañu sutante mu seet benn rek teg ko fa waaye nag yonent bi ba ma ñaar ba mu mu ne ba mu demee ci teen ba dafa fekk lépp soppeeku dara mo dal yonent bi nag bi ko bi mu jotee mbiri yonent bi Aliou ne ko da nga nii nga lenay baye mu ne comme yalla fegal na ma sen hay kay kon lan lay defati ci fayoog ñoom na indi eh, nafila bobu na la bëgg a joxe falak ak nafila xulaxoon si bi def minaas da ngay def fatiha ben yon bo defee fatiha ben yon nga def subhanahu wa ta'ala falak juromi yon ndax juromi aayal nga def xulaxoon si juróom benn yoon muy fukki xam nga fukki yoon ak benn ndax yonent bi bi ñaari saari wàccee bu ne xulon si bu fal aaye bu mu jàng rek benn pas-pas fecceeku benn puso wadd ndax fiñ façon fi la ñuy def benn benn puso benn pas-pas fecceeku benn puso wadd pas-pas yooyu du pas rey te du pas recci waaye pas fecci la du pas rey pas rey mooy loo xam ne danga koy fas nii rayee ko pas rey ci mooy loo xam ne boo ko fasee boo ne nii rek mu deñ pas rey nag moom la ñu gars yi di euh, njabarkat yi ak ñiy takkaat dëgg nii la fas fas ku jafe la nii la te bu tare yonent bi mu ko jàngee ba pare soo aaye bu ne rek mu feccee ko kon na yow da ngay jàng benn faatiha def juróomi xulonce bi de falax sëgg-siggi taxawaat jàng benn faatiha def ko onze bi rabbi naas siggi siggi boo paree am nga onze nga def ci ñaar rakk taaye selmal bu ñaari doyee baax na bu la nga def yeneen ñaar rakk muy ñeent mooy am ga quarante mooy am nga quatre cent quarante quatre bu la doyul nga defaat yeneen ñàkk ñaari rakk mooy ne am nga si euh, euh, soixante six euh, muy allah bu la doyul nga defaat ñaar rakk muy am nga quatre-vingt-huit bu la doyul nga am def ñaar rakk muy am nga quatre-vingt-dix-neuf bu la doyul nga defaat ñeneen ñaar rakk muy euh, cent vingt et muy allahu mujib ndax qul a'uuzu bi rabbil falaq yaa ngi ci am booba juróom fukki yoon juróom qul a'uuzu bi rabbin naas yaa am juróom benn fukk juróom benn muy allahu mujibu saar yooyu nag li tax mu garaam man lu ne ci àdduna yow mi bugg dara ci àdduna bugg xalal bugg këyit bugg bayra bugg jàmm bugg takk soxna te yore kër bugg yar say doom ci jàmm te muccoo mënoon na te boo xasee julli julli gi moom yaa way xa li arab wax yaa way la ku la bugg a kooku kay mu dugg na liggéey kooku kay moom yàlla ci bopp ak malaaka yi taxaw nañ ndax Quraan sabra bi fala juróomi aaya la yàlla musuli ci benn turu yàlla mooy bi rabb fala ndax li ñuy def rek lu bon rek lëndëm lañ koy def moo tax yàlla indi safaan ba lëndëm safaanam mooy suba mooy mooy suba rabbil falaq mooy rabbil mooy borom suba te rabbil falaq boo seetloo yu garaaw yëpp maanaam àdduna lépp ñaar-ñaar la mulkoog malakoon moo fi nekk xaalamul xaybi wa saada mooy li nga mën a gis li nga mën a gis xees ak maana mooy li nga yëg ak li moral bi nga mën a yëg ak àdduna ak àlaaxira mu tegu ci ruux ak jasad maanaam ruux gi ci biir ak ruux gi ak jëmm ji ci boppam muy juróomi juróom moo tax saar bi ñëw di nekk euh, juróomi aaya boo demee ci xulonse bi mën naa juróom benn aaya yàlla ko musloo ci ñetti tur yàlla rabbu malik ila rabbu moo toolo xale bi ñu yar malik moo toolo waxambaane wi dangar dangar kooku doole rek lañ koy yare ilaahu moo tolloo màggan mi màggan nga xam ne jaamu jee laa ko dese yàlla mu muslu ci yooyu muy juróom benn aaya moom itamit Eh, moom ca biir lay mu ndax bële rabul falax rab xulon asubiril falax lépp lu yàlla bind lu ñuy teg ba rek mooy falax mooy xaasix irsa wa xab bu guddi gi la ndemee nafasaati fil uqad la ñuy tafli ca pas-pas ya xaasid min naas isa asada ki xañaan bu xañaani yan nañu yàlla mosal ko xañaan bu xañaani min sari maa xalaq lu ay lépp lu bind rek kooku moom looloo tax xalqu wal amru nag ñoo nekk ci àdduna xalqu mooy amru mooy naa mooy mooy sorotu naas sorotu naas juróom yi ma njëkkoon a wax mu nga ca biir moom xaalaa xara ko tax a jóg lu tax yàlla muslu foofu ci ñetti tur yàlla parce que kooku sa diine la bëgg a ku yàq sa xol yàq na sa diine moo tax mu ne xul a'uuzu bi rabbi naas ne maliki naas ilaahi naas eh, rabbi naas xul a'uuzu bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas min sharri waswaasil xannaas allazii naas min al naas loolu lañ mayee tey di ci jaamu yàlla ñaan yàlla yonent bi na ba mu wàccee yal na bul mucc yal na yàlla musal ñëpp ñu ngi ziare sang yëpp di ziare suñ xalifa di ziare ay rakkam góor ak jigéen mag ndaw di ziare Cheikh Mamadou Amine Ibrahima Baba ci Dakar di ziare mboolam xalifa généraux yi ci senegal bàyyiwuñ benn kër ndax kër yëpp kër leer la ker yëpp ker barke la kër yëpp kër teranga la kër yëpp kër Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyu xale yi faydatiyani point com دينا نيان التوفيق وما تيسيري وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب سن سوب سن خل الإمام محمد جمل وسلم برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان Thank